bi yàlla na fa yam mhm. mais quand même Sénégal contrairement à une idée reçue hein Sénégal nous ne sommes pas violents et mais notre classe politique est habituée à des violences surtout en période électorale lan moo ko war a expliquer que ni bu nekkee en compétition électorale souvent il de la violence euh, waaw déjà vraiment di di déplorer violence bi neexul ci ci xol quel que soit nag camp bu mu nekk je pense que Sénégal bi ñuy voté léegi waroon nañ dépensé yu yu mel noonu. Euh, mais suñu suñu culture euh, dafa ànd ak boo d'accordul ak nit. Mhm. ci xalaatam dangay faral sax contre nit ki wala nga xaw ko bañ noonu la ñuy fonctionner en fait on est on est toujours prêt au clash dañuy dem puus nit ba mu sës. Mhm. alors que nit mën nañ toog di waxtaan d'accord ñu ci xalaat yi. mais du ñu dem au bout des ñu dem au bout clash. Mhm. Euh, une fois damay liir moo grand frère euh, le professeur moom Diouf historien oui. qui est à, qui, qui enseigne aux, aux États-Unis moom laa mës a dégg mu jëkk a def analyse boobu fekk ñuy wax naan waaw Sénégal dëkku teraanga dëkku paix et cetera grand bi jël defal leen benn discours wan leen ni depuis Sénégal nekk Sénégal amul benn élection bu ñu fi mës a bu amul violence amul amul violence moom dafa ànd ak suñu élection man autant que je me rappelle man mhm. bi may am 18 ans ci moo tombeek 1988 mhm. boobu ba léegi amul élection bu fi amul violence 94 on a même tué un vice-président d'un conseil constitutionnel li fi xew nii 2021 2022 2023 kenn mënu la ko expliquer je pense que nag homme politique yi peut-être am nañ ci seen responsabilité déjà bañ a jël critique loolu man dama koy jéem a appliquer sama bopp di ko mën a conseiller sans aucune prétention aux autres man dama jàpp ne boo nekkee dans l' espace public tey Abdourahmane Diouf président de parti la Abdourahmane Diouf ministre la ala kulli alin mhm. nit ñi nañ wax ci yow. mënoo ci dara non mënoo ci dara. gis nga loolu boo ko réglé ba intégré ko et xam ne ñëpp mënuñoo d' accord ak yow. Mhm. tu as réglé quatre vingt pour cent du problème. parce que violence yi lan moo koy indi tey yow da ngay nekk ci benn zone nga jàpp ne fa am doole. keneen ñëw bëgg fa wane dooleem nga ni noonoo man sama égoo man. man diw man diw man diw. sama koñ doo fi def lii sama quartier doo fi def lii sama dëkk doo fi def lii sama fief la fief amul mhm. fief amul nga jël jeunes yi instrumentaliser leen ñoom tam amuñu liggéey ñu dugg ci donc loolu moom un appel rek laa ci mën def mhm. vraiment que chacun revienne à la raison cycle bi nga xam ne ci lañ nekkoon ñu génn ci dem élection législative yu apaisé ki gagné gagné te gëm naa ne ñun ñooy gagné mën a dérouler suñu ah, am nañu ne euh, le ministère de l'intérieur par exemple mën na dem plus loin peut-être désarmé Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy topp ci cortège parce que cortège kam da nga ci gis souvent de gros bras. Mhm. Euh, bon ñu toll ne Pape Mokhtar yooyu. Mhm. yor seen i yat seen i jaas yi ne ci cortège est-ce que y a pas un travail à faire à ce niveau. mais c'est pas un travail booy def ci une semaine deux semaines par exemple ñun la vente des armes dafa libre bu la neex nga dugg jënd tant de jaas yi tant de et cetera et cetera donc loolu benn travail d'éducation la bu ñu war a def wala benn réglementation bu ñu war a def en amont mais politique bi nii ma ko gisee nii campagne bi. damay ragal sax ne police bu ñëwee dugg ci fekk ay politiciens ne daf leen di désarmer justement foofu la ñuy wax ne ministre de l' mu ngi. mu ngi dugg ci voilà mën naa je pense que problème mu conscience la. Mhm. problème mu conscience nit boo meree bu la neexee jooy bu la neexee way mais bul dóor. bul gaañ bul bul gaañ bul laal gis nga am na peuple yoo xam ne noonu la ñu mel. am na peuple yoo xam ne mën ngeen wax ba teggante dënn mais loxo du mës a jóg. parce que bokkul seen culture. ñun peut-être loolu la ñu war a gën a travailler xam ne politique bi aussi ñëpp bokk ndey ñëpp bokk bàyyi man de loolu laa gëm. moi j'ai toujours prôné. la paix sociale te discours président Diomaye bi passé wane na ko. fi mu ne nii nañu tàppe xol yi mhm. liggéey parce que léegi Sénégal lan moo fi am dangay nekk opposition après nga nekk pouvoir. Mhm. après nga nekkaat opposition. léegi boo fi nekkee itam pouvoir def lu ñaaw ëllëg bu safaan bi di dal sa kaw ci yow lay metti ak sa ay mbokk. donc moi je pense qu'on peut pacifier l'espace politique te espérer naa ci deux semaines yi nga xam ne moo des ci campagne bi ñu pacifier ko ñi war a gagner dinañ gagner parce que violence bi aussi mënul am impact ci résultat bi mënoo ne dama. nit ñi di leen violente bañ boteel la. exact au contraire sax ci la la nit ñi di gën a jéppi ngeen baal ma terme bi génn ci yow donc amul impact. donc c'est des égos homme politiciens yi politique yi égos yi moo leen sonal <laughs> bu dul man du keneen man maay diw man maay diw mais fii écoute fii ku ne mën nañ fi fal ku ne l'essentiel mooy yow amal ay moyens yoo xam ne bu ñu la falul nga dem defi leneen donc booba boobaa c'est pas une question de vie ou de mort pour toi ñàkk falu du la tax a kii du la tax du la tax a Moussa mi ngi koy wax euh, sànq ah, mhm. euh, les discours de de, de campagne yi ñu jot a dégg mi ngi wax sànq ne le premier exemple mhm. euh, quand il va en campagne son ko axé le euh, la vision Sénégal 2050 d'ailleurs même ces meetings daf ko euh, teg ci les pôles yi nga xam ne euh, moom ngeen wax ne moom ngeen bëgg a créer mais d'une manière générale je veux juste une appréciation générale des discours yi nga xam ne moom la ñuy ànd euh, dégg boobu léegi est-ce que jàpp nga ni yaa la campagne est à la hauteur des attentes des Sénégalais en tout cas ñun de suñu campagne gëm naa ne c'est à la hauteur des attentes gëm naa ne sa va même au-delà de ce qu'on pouvait espérer l'opinion publique parce que nag aussi man maa ngi bëgg yàgg quand même ci langue politique bi fekk naa élection présidentielle ay élection locale ay élection mais récemment Sénégal dañu doon wax programme amul njariñ mhm. boo bindee programme dañu lay sax xaw a raayee di la sax xaw a ñaawal mais de plus en plus on se rend compte que nit ñi dañuy déglu te mën nañ la fal sur la base de ton programme oui. contrairement c'est que débat bi Sénégal des fois mën na baax loolu moom dëgg la kenn mënu ko weddi mhm. mais itam débat politique Sénégal depuis un certain temps am niveau les gens parlent d'économie les gens parlent de gouvernance les gens parlent de compétitivité léegi nag ñun rupture boobu lañu indi ren xaw moo ndëgam <laughs> Pape Makhtar dina d'accord ci rupture boobu ou pas <laughs> mais rupture boobu lañu indi est-ce que remarqué ngeen ne c'est presque la première fois ñu dem campagne électorale Ousmane Sonko il est jeune mhm. il a cinquante ans mais est-ce que remarqué ngeen day jël chaise toog oui à Thiès dafa jël chaise toog pour waxtaan ak nit ñi calmement avec une voix posée di wax pêche di wax industrie di wax climat di wax immigration clandestine xam nga toog quoi xam nga boo toogee tu n'es pas dans la logique je suis en combat oui. tu pas dans la logique damay haranguer les foules avec les slogans parce que benn moment on a sloganisé les campagnes politiques da ngay wax benn phrase choc wala ñaari phrase choc mu def defaral la wala mu yàqal la mhm. mais là on est dans une logique de pédagogie pure comme dit Abdoulaye Cissé de la TFM mhm. les meetings c'est des causeries les meetings de Ousmane Sonko c'est des causeries et tu vois man j'étais à Mbour dem naa bu Mbour bi mais bu ñuy def meeting bi mbuur di wax mais bu weñ biwee sax nga dégg ko ça veut dire qu'on est en train d'écoute mais mais dañuy déglu et tu que les gens ça les intéresse xam nga Sénégal am nañ benn élément culturel boo xam ni euh, sans sans sans sans sans avoir aucun mépris pour les autres langues mais nous sommes l'un des rares peuples en Afrique boo xam ne am nañ benn làkk bu ñu fédéré boo xam ne boo ko waxee ñëppay dégg. ñëppay dégg donc du coup Abdourahmane Diouf mi am doctorat en droit ak maire bi di jaay caaf nga xam ne moom duggul sax école boo deful nank même niveau de compréhension la ñu am du débat politique. parce que boo ñëwee nga benn bennal ko waxal leen ko wolof. ki jàngi français ki jàngul français day comprendre léegi nag nit ñi commencé nañ am. niveau de conscience boo xam ne politicien bi xam ne ne bu ma dof dof loolu duñu ma voter Sénégal c'est l'un des rares pays en Afrique bu am opinion publique Sénégal dafa am opinion publique Sénégal ngay yëkkati benn affaire deux heures de temps nga tegaat ko ba mu set wécc. parce que ñu ñi dañ ci jóg. Mm-hmm. loolu presque amul Afrique gis nañu sax ku <laughs> mais loolu loolu loolu loolu nag pour man marque d'une démocratie très avancée parce que peuple bi comme ni ma ko waxee sànq mënoon nañu la fal 2024. Mhm. amaat ak yow rendez-vous mais entre temps amuñu moyen mais peuple bi dafa am moyen de. Mhm. peuple bi am na yoo xam ne doo ko fi defee man bourse étudiant yi chaque jour dama yeewu bind communiqué <laughs> parce que boo bindul communiqué dëkk bi tas. parce que dañu am doole. et pourtant mhm. a priori. à l'époque le ministre il est puissant bu ko neexee wax bu ko neexee wax mais ñun on a une obligation de rendre compte tous les jours mais pour man loolu c'est une démocratie donc tey ñun stratégie boobu ñu jël def ko nag par pôle cest à que foo dem nga wax leen li nga xam ne moom mooy seen ay préoccupation wax naa ko sànq fii Rufisque bi ma jógee demee ci meeting bi moom laay def ba ma demee mbuur c'est ce qu'on a fait Mbour programme immigration clandestine la ñu am. wax ko fa benn moment jeunes yi d'ailleurs dañu interrompre suñu tête de liste Ousmane Sonko. en dix disant que yow yéen yéen a ñu teree dem mbëkki. donc veut dire que mu ngi wax wax bi pareegul mais am na. Mhm. impact ci ñoom. parce que ils sont de lu dire li ngay wax nii bu dee moom nga nar a def. Mhm. ñun ñi naroon mbëkki dematuñu mbëkki. mais nag loolu muy wax noonu pour mën ko def. il faut mu am majorité à l'Assemblée nationale. justement pour teg ko. justement docteur Abdourahmane Diouf est-ce que quelque part c'est pas que ñun. Euh, mm-hmm. les vous les acteurs politiques ñun ñu ne médias yi ak les sénégalais c'est pas parce que on vit ça. que on se rend pas compte finalement que y a une révolution qui est en train de se passer dans ce pays je m'explique. Mm-hmm. un, un un chef de parti qui veut une majorité. Mm-hmm. jàkkaarloog ay jeunes. ne leen dinaa teg l'armée beeg gendarmerie ci géej gi kenn du fi génn dem fii ngeen di toog liggéey ça c'est un discours qu'on n'entendait pas euh, tey des ministres de la République qui ont qui ont vraiment mille choses à faire. Mhm. mais qui sont sur les plateaux de télévision. Eh pour s'expliquer non pas parce que Moustapha Diop la ñuy waxal mais parce qu'ils ont un devoir de rendre compte à l'opinion est-ce que c'est pas parce que ñun on le vit on pense que c'est finalement naturel. Mm -hmm. on oublie ce qui s'est passé il a quelques années. que on se rend pas compte que on est vraiment dans une révolution quelque part. waaw xam nga dañuy wax naan le bonheur. boo 2015 ak at <laughs> neexoon mais instant bi nga koy dund. doo ci rendre compte mais gis nga Moustapha. Mm. le Sénégal est un peuple très dévan très très démocratiquement. c' est peuple boo xam ne comme je l'ai dit dafa am opinion publique c' est un peuple boo xam ne dafa am débat. Mm-hmm. c' est vrai que ñu ngi wax violence ci campagne électorale bi dina am. mais ñun lan moo tax mësuñu yegg ci ay guerre civile ak yenn yi. pourquoi on a toujours été au bord du gouffre mm-hmm. mais on n'est jamais parce que c'est un peuple gis nga wax sa xalaat bu ndaw bi ngeen di ñàkkal fay la waxta xalaat ci élément de régulation et élément de stabilité de la société sénégalaise la bokk parce que da ngay mer sa mer dem jënd sa crédit mhm. woo rajo bi wax lu la neex boo waxee ba giif wax ba après dem nga lekk sa ceebu jën naan sa attaaya pare nga ci dans les peuples yi nga xam ne ñit ñi amuñu possibilité génn seen frustration boobu ñoom dañuy wuti ay yet wuti ay jaasi di dóorante seen biir donc suñu démocratie c'est pas parfait je suis bien placé pour le savoir mais tout n'est pas négatif moo tax ku ci nekk ci opposition na nga xaw a modérer aussi sa langage man damay faral di wax ne dañuy am benn dialectique ceux qui sont dans l'opposition ils doivent avoir la dignité de l'opposant man tey ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon je parle pas des opposants qui étaient dans l'opposition ñun ñu ñëw ñu continuer nekk dans l'opposition ñooñu ñoom sax laa gën a mën a comprendre mais ñi nga xam ne pendant douze ans ñoom ñoo fi nekk di def presque lu leen neex di jalgati ay droit ak une certaine arrogance ñooñu instant bi pour man dañu war a am la dignité de l'opposition def profil bas booy wax sa ay idée nga wax ko ci correction ak njëkk nga respecter institution yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mmh. mais en même temps le pouvoir warul am benn arrogance et le pouvoir te ci lañ jëm bu ñu amee victoire même si on a 150 députés mmh. on doit avoir le triomphe modeste Moustapha parce que du ngóora nga toll ci benn situation askan bi topp la dañ la topp parce que dañu am ci yow espoir. espoir donc le pouvoir aussi doit avoir le triomphe modeste en toutes circonstances mais loolu boo ko boolee ci ngay am une classe politique de gentleman chroniqueurs yi dugg ci ñëpp dugg ci waxtaan bi neex. Mhm. mais léegi da ngay gis ay plateau ay waxtaan yoo xam ne tu sais que lii weesu na politique. parce que ci vie privée nit ki la ñuy dugg. les gens ils oublient que ñi am pap dañu am yaay dañu am jabar dañu am doom. Mhm. mois j'ai je suis pas journaliste mais j'ai reçu une très grande leçon de journaliste que vous citez vous tous mooy la Mame Less doon wax Mame Less Camara ku ci bind wala nga def ci chronique jëlal turu jigéen bi nga def ci sa turu yaay jëlal turu góor bi nga def ci sa turu pap yow sa bopp di nga xam ne gam lii war nga ko wax na wala waxawul mais léegi dañ lay téye di la ŋawte ŋawtee ba nga xam ni mais yow même boo ko mënee muñ nga mën ko wannaasu mais ñi la jegee mënuñu ko muñ non loolu nag mooy indi yenn dérapage donc il faut dépersonnaliser les choses que ceux qui sont au pouvoir acceptent que ñoom man fi mu ne nii tey li ma nag li ma paree dégg mais pare wu ma koon dégg avant mais man liñ may fay ak mu mu mënti toy mais tey Sénégal ñoo ma jox ay responsabilité cest dire que dix huit millions de sénégal dix huit millions mhm. bëri na ñu jël ci fanweeri nit fanweer ne leen yéen àllarba bu nekk yéenay toog yéenay décidé ci Sénégal. nan la réew war a doxee. mais Pape mais Moustapha loolu dafa am doole lool ku ko xam ak ku ko xamul dafa am doole mais loolu bu ñu la ko joxee da nga war a modeste xam ne yow tu au service de ton peuple man de conseil des ministres ba may toog. chaque mercredi wallahi waxuma ko pour politique loolu laa fay dégg je vois beaucoup de modestie je vois beaucoup de besoin d'apprendre. mas naa leen wax fii man yu bëri yu may wax nag Walf laa koy waxee <laughs> mas naa leen wax fii ne leen le président Diomaye il va en surprendre beaucoup parce que il apprend très vite et il est très pragmatique tey boo ko xoolee mu dem Arabie Saoudite Arabie Saoudite bu mu ko demoon ça n'a pas été suffisamment médiatisé du tout c'est un forum investissement tous les chiefs exécutifs officiers du monde étaient là-bas les plus grands patrons du monde étaient là-bas j'ai un ami qui me disait ce matin c'est the place to be mais nga dem nga xool nañu ko fa tegee nañu ko fa taxawee l'un des hommes les plus influents du monde en termes de stratégie mooy Athias moo ko organisé c'est lui-même qui a interviewé le président Diomaye nga déglu ko xool impact bi mu am pour un président de 44 ans qui est la depuis 6 7 mois c'est une fierté sénégalaise nga dem xool Turquie nga xam ne moom moo tenir tête aux nation occidentales nga xool place bañ ko fa jox ni ko Erdogan jëlee en réalité en réalité notre diplomatie est en train de se révolutionner mais les opposants ne voient pas ça instant bi il faut voir la fierté du Sénégalais savoir qu'on a en place des gens qui sont jeunes qui n'ont pas l'expérience du gouvernement mais yàgg naa ko fi wax ñi fi amoon expérience du gouvernement mooy ñi raté pénalti yi mooy ñi ñu sànq ñoom ñoo ñu sànq mm-hmm. mais ñun on a l'humilité man j'ai beaucoup d'expérience professionnelle beaucoup mais j'ai jamais été ministre mais j'apprends à Et j'apprends à être ministre, mais humblement, Ousmane Sonko apprend à être Premier ministre. Président Diomaye apprend à être président. président et le peuple moo ñu war a accompagner bu ñu juumee ñu ne ñu bii baaxul teg ko teg ko droite wala teg ko gauche mais ñu ànd développer mais moom laa lay wax des fois li ñuy manqué mooy dangay am les talents individuels mais tu n'as pas le sursaut collectif ki nous permettent de nous en sortir loolu nag lañ soxla maintenant l'opposition est dans son rôle mhm. nañu critiquer nañu ŋàññi ñu xaxar mais man li may espère mooy bu élection yi jeexee fin de mois de novembre jeex xoolal ñu delluwaat nag ci boo xam ne lañu war a taxaw waaye wax waxu politique politicienne bi dugg ci compétitivité mhm. dugg ci gouvernance dugg ci capital humain taxawal lu programme Euh, deux mille cinquante bi nga xam ne ci loolu la ñuy dugg léegi sax euh, deux mille cinquante ak enseignement supérieur mais bale boobu rek sur les. Euh,